alors de la même c'est la même manière pour l'exclusivité de candidature loolu ma fàttali ni 2001 la ko président ab Ablaye Wade dugal daan notre constitution ci référendum bi mu defoon avant 2001 amuloon ci suñu constitution. l'exclusivité de candidature de la nationalité. de la nationalité mooy ni ah. booy nekk candidat à la présidence. Mhm. da nekk sénégalais mais da ngay nekk exclusivement sénégalais. en 2001. mille la dugg ci suñu constitution Ablaye Wade boo ko ci dugal alors. kooku également xañ na 93 candidats yi mënoo bind à tous les autres pays ni leen est-ce que Cheikh Dieng amul nationalité malienne amul nationalité ivoirienne. Hmm. amul nationalité béninoise et cetera. d'accord par contre dans le débat public am na ñu ñuy laam-laamee ni am nañ double nationalité dañuy laam-laamee ni. Kanibaat am na double nationalité. Mm-hmm. dañuy laam laami ni Khalifa Sall am na double nationalité dañuy laam laami ni Amadou Ba am na double nationalité. Mm-hmm. yooyu mu ngi dans le débat public mais une fois que bu nekk ci débat public donc rek euh, conseil moo am responsabilité pour pour réew ya nga xam ne dañ naan am nañ fa double nationalité moom mu bind de ministre de l'intérieur de réew yooyu en l'occurrence la France pour ni ko est-ce que Karim Wade Khalifa Amadou Ba am nañ nationalité française wala amuñu nationalité française mmh. à partir de ce moment on a une information officielle donc et le débat est clos parce que l'information officielle est donnée par le gouvernement français bu naan diw ak diw ak diw bi nga ma laajkat ñoom nekkuñu ci suñu fichier des citoyens français parce que France dafa permettre nit mën a am ñaari nationalité mhm. alors euh, à partir de ce moment bu fekkee ne également dafa am benn candida bu porte réserve sur un autre candidat ni ko da am double nationalité xam nga la nationalité bu dee amoon nga ko noo koy perte c'est c'est à travers un décret du président de la république ça aussi faut que les choses les choses ñu xam ko mhm. par exemple je donne un exemple boo nekkee un sénégalais bëgg am la nationalité euh, allemande Allemagne hmm. reconnaîtrewul double nationalité amul bii nationalité foofu tey boo nekkee sénégalais bëgg euh, acquérir la nationalité allemande Allemagne daf lay laaj nga renoncer sa nationalité sénégalaise comme tey ku am beneen nationalité bëgg nekk président de la république daa nga war a renoncer si sa beneen nationalité ba nga amoon mhm. et là c'est une démarche administrative da ngay bind donc à tes autorités le ministre de l'intérieur en l'occurrence ñu instruire dossier bi parce que c'est toujours un dossier bon qui fait l'objet d'une instruction policière ñu vérifier d'abord des nationalités bi ngay bi ngay renoncer amoon nga ko ba pare ça c'est la première phase de l'instruction est-ce que amoon nga ko ci condition légale ensuite est-ce que am nga droit parce que on n'a pas toujours le droit de renoncer à la nationalité ensuite boo ko renoncer est-ce que di am beneen nationalité parce que li ñuy wax apatride ku bokkul fenn dañoo am ay convention des eh, des Nations Unies yoo xam ni vraiment dañuy protéger nit ki pour que nit ki forcément mu am une nationalité donc toutes ces conditions dañuy def l'objet d'une instruction alors bu bu bu wóoree gouvernement sénégalais ni Birame mi bu renoncer à sa nationalité sénégalaise dina am beneen nationalité parce que dafa war a am une nationalité allemande à partir de ce moment président de la République sénégalaise doo ko jël décret pour qui constate que euh, Birama a renoncé à sa nationalité sénégalaise procédure bi noon lay demee noonu lay demee France également le président français dafay jël un décret instruire ni donc Amadou Ba bi ñuy laam-laamee ne euh, am na am na nationalité française en plus de sa nationalité allemande wala Khalifa Sall wala Karim Wade ñoo ñett lañ koy laam-laamee sur la scène publique président français dafay jël décret à parti de ce man Cheikh Dieng bu ñu ma ne amoon naa nationalité française ma war a prouver ni j'ai renoncé à ma nationalité française damay indi décret bi nga xam ni donc mooy constater que j'ai renoncé que j'ai perdu désormais ma nationalité française teg ko sur la table. d'accord et le débat est